qui mag ñi fi daje tey di mag ñoo xam ni bërëb bu ñu dajee daañu xam ni yiw ma nga fa kon association des imams de la ville de et l'association des imams de la ville de Pétine c'est association de délégués de quartier du département de Pékin et de délégués de quartier du département de Guézoué. Deux nouveau, monsieur le maire de la ville de Guédiawaye Aliou Sall le maire de la ville de Pékin, M. Abdoulaye

comme nous, les députés du département de Guédiawaye ainsi que les députés du département de Pékin, avec les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ou Conseil économique social et environnemental Nous, le directeur général, le président président conseil d'administration de madame madame mbolam les responsables politiques yi nga xam ni ñoo yeewoo ci ñaari département yi tey teere ñu fii ci Géejawaay may nuyu tam imam El Hadji Moustapha président de l'association nationale des imams et oulémas du Sénégal ak imam ratib imam Mar bu ainsi que l'imam Abdourahmane Diba

sëriñ Moustapha ibn sëriñ Abdoul Aziz Alamin si ma ngi toog si jotaay bi di nuyu suñu mbokk yi jóge Touba ma ràññee si suñu xarit sëriñ Bassirou Khadim Awa Ba Mbacké ak mboolem njabootu suñu maam Ibou Sakho euh, ñu ngi leen di nuyu yaakaar naa ñu ngi ci jotaay bi en tout cas seen naa leen fi sànq ak famille Cheikh Omar al Foutiou ak mbooleem këru diine yi ci biir réew mi waaye mais nuyu itam nag les sages muy mag ñi rawatina sages yi nga xam ni mooy maanaam kilifa yi waaye tam jigéen ñi ndax jigéen ñi itam am na ay sages seen biir. di nuyu ñu fi teew ñëpp ci sama turu ak turu délégation bi ànd ak man maa ngi ñëwoon pour inauguration seen juma juma ji nag bokk na ci ay liggéey ñu sumb moom ak juma bu Pikine ndax da nekk ñaari département yoo xam ne dañu nekk xolu senegal muy Pikine ak Géejawaay ñoom importance lool nag ndax mbooloo bi fi yeewu moo tax ngeen yelloo ay infrastructure tali bi ñuy wax muy GDM 2 bi te xam ne tey boo koy xool daanaka autoroute la bu një bu njëkk ba ku ne da dem Géejawaay wala Kër Massar day mën lu sore lool ci yow waaye tey yegg si ci gox yi nekk na lu yomb te kanam la jëm li moo tax aussi am na beneen programme bu bees boo xam ni boobu géejawaay lañ ko jagleel mu nekk ci diggante dem bi ak dëkk bi ñu indi li ñu wax bus transit rapide ay xeetu autobus la yoo xam ne réew yu mag yi rek ñoo ko amagum day am yoonu boppam taxi du fa jaar beneen oto du fa jaar parce que dañu bëgg nit ñi mën di gaare seen seeni oto di jël transport public di ci doxi seen soxla ak ñëw te du am jafe-jafe du am pollution du am embouteillage léegi BRT boobu daanaka sore nañu si moom day lëkkaloo ak terre bi maanaam boo bëggee jóge fii dem Tëngéej wala dem Jamñaajo wala dem Ndakaaru mën nga jël bus boobu ñëw jël teer continuer dem seen wala jël bus bi jaar jël beneen xeetu transport te li ñuy wax du ay gént du ay digle man duma digle lépp lu ma wax rek fekk na ñu ko xool ko xayma ko ba am alal di koy liggéey kon day wute ak façon bi nga xam ne moom la ñu tàmmaloon fii ci Sénégal di wax rek di léeb rek di léeb rek du ma nag waaw luñ ci wax rek fekk na ñu étudier ko gëstu ko wut alal ji ciy dem BRT bi réglé nañ ko ba pare ak banque mondiale n'est-ce kon Géejawaay ak Pikine ak Tëngéej dana dem ba dëkk fi mooy gën a yomb tey ngay dem di dëkk biir Ndakaar ndax hôpital bi hôpital bi gis ngeen ne bokk na tey ci hôpital yu gën a yu gën a xarañ ci senegal loolu ñu doon wax hôpital Dalal Jàmm naan radiothérapie coow lu bari la ana coow la tey ni hôpital bi mel na yoon wu bees bi mel ko te dinañ ko ubbi le 24 wala le 29 mooy tali bu nga xam ne dañ ko maanaam dañ ko étage c'est un un pont suspendu donc loolu dana wone dëkk fii nekkatul gàllankoor mu def nag am na looleen soxla cimetière yi wax nañ ko loolu joxe naa si ndigal ba pare kon ça rek la danañ ko tabax jox leen ko man meeru Pikine mi may déy naan ma ah, président man it sama cimetière waaw moom it moom it waaw ci mbaaw foog naa dinañ ko fa dagal ci forêt bi foofu ñu complété pour Pikine également délégué itam dégg naa li ngeen wax waxtaan naa ak maire bi incha allah li ci war dinañ ko def parce que état dafa wara nek pour di faj ay soxla am écoute di deglu so deglu nga safara dañu mën mëna safara nga safara ko lo mënul tam nga xamal ni ñu li kat kat ñu ko nak li ak li moo tax waaw jaral di digé lo mënul dara ko kon mais li ñeen ma wax mom yalla mën lo na ko kon dinañ ko def incha yaakaar naa ne Guédiawaye moom ak Pikine foog naa ne man campagne bi sax bu baal ma seeti ñeneen waaye <laughs> fii waaye nag waaye nag waaye danaa ñëw rek nuyu si leen danaa ñëw nuyu si leen def benn doxantu benn daagu daagu maron beuse waaw parce que foog ñu ñëw déjà bi ma ñëw julli si wax dëgg yàlla dama am sax mbetteel parce que wax dëgg yàlla junni ji àjjuma ñu lay teeru kooku dafa xaw doy waar mais soyez sûr soyez rassuré mag ñi en particulier dina dinañu yokk politik sociale yi c'est-à-dire politique yi jàppale doomu aadama ba nga xam ne aussi bu demee ba nekk mag foog gouvernement bi état bi nekk ci wetam ci wér-gu-yaramam ci dundam ci njabootam parce que loolu tam mooy finalité maanaam moo tax ñu yëngatu soo yëngoo ba nekk mag yal na fekk njaboot gu ndaw gi mën na jël relais bi loolu nag li koy tax mooy koom-koomu réew bu dëgër liggéey pour xale yi ñu jàngal leen ay métier jàngal leen xam-xam réew mi di dox ci ni mu war a doxe coow lu nag du mën a ñàkk ñi coow bàyyi leen leen ñu coow parce que tam nit ki doo ko doo ko gañe ba pare ne jooy bàyyi leen ñu jooy bëgg a kasit nañu kasit loolu c'est pas grave li li nga xam ne mo mënul am moy taxaw na dal ñun dañu bëgg manam réew mi du dox déet loolu nak mom loolu mom du mëna a nekk réew mi mun gën dox bu ci yalla andé waaw kenn nak kenn kenn kenn bu mu yaakar ne mën na taxaw ak ci pexé wala ak chay chay buy tax di nga indi fitna ak di tiital waa réew mi ba tax ne ni réew mi war a jaar du fa jaar waaw lamb ji daal la nga ne ku bëgg a bëre nga ñëw bëre ku seetaan waaye du bëree keneen du bëre lu tax loolu mooy problème bi donc seen xel dal na seen xel dal te nag nañu yokk fagaru maanaam mbir mi bi ñu jàpp rek ne sotti na ba pare dem toog déedéet dañ koy dox ba le vingt-quatre ci ngoon ba jot tey ji tum neex nag nga dem noppalu kon na ngeen yokk taxawaay déjà taxaw ngeen man de sama taxawaay danaa ko yokk bépp effort bu ma doon def ngir Sénégal jëm kanam danaa ko yokk parce que li ñu bëggal Sénégal mooy mu bokk ci réew yi gën a jëm kanam ci Afrique te yàlla mën na ko def yàlla may nañu ay nit ñu xarañ may nañu jàmm may nañu borom xam-xam. may nañu sëriñ bu baax ay waliw ah am nañu am ndaw jeunesse bu baax léegi bu ñu yàlla maye dirigeant yu am engagement kon Sénégal war na mën a jëm kanam bokk ci réew yi jël paix ci Afrique loolu mooy wax ji lu ci des nag maa ngi jégalu ndax añ bi kat waroon nañ leen ko jox waaye naa leen boole ñoom ñii ñaar ñii ñu toppatoo leen kat. ndax te ay mag tam waxtu bi doo leen jox añ moom problème la moo tax wax ji du jar a guddal sinon sant bu baax xalaat bu rafet bu ñu am ñoom mooy Ablaye Thimbo le maire de Pikine et Aliou le maire de Guédiawaye dajale dajale magu ñaari département bi parce que ajjuma bi ñëw bu ci yàlla àndee dañuy julli ji pikin waaye du ñu am jot bi ndax ci ginnaaw gi dama am beneen événement bu mag ci jëm naajo muy marché d'intérêt national boo xam ne marché bi ëpp ci Sénégal dañ koy ubbi bés boobu marché légume lay doon marché yàpp lay doon marché meew lay doon lu ne dañ koy def donc ajjuma dañu ñëw pikin julli si suñu jullisee it mënoon nañu lancé bu ñu neexee marché syndicat waaye nee naa ne nañ bàyyi ba élection bi jàll mais alal teew na yéexoon na nag waaye marché bi dinañ ko tabax incha allah kon li des mooy sant leen gërëm leen sant les responsables du département de Guédiawaye madame l'honorable député maire Aïda Sow Diawara l'honorable député Samba Ndiaye l'honorable député Bougazi Bougazeli Seydina Fall ku nekk sa wet l'honorable député Awanya l'honorable Mika Ba l'honorable Anna Gomis Samba Damba Ndiaye je de Yeumbeul ak le maire madame le maire attendez xaar leen ma toog maire maire maire conseil d'administration, la Fatima Mme Fatima Tall notre camarade Lat directeur des et de la coopération madame l'ensemble des responsables du département il faut ngeen may wax de fàtte naa ah tous les maires Baby bi ba waaw ah oui Racine Talla le directeur général Racine Talla alors waa Pikine ay ah, de Sougou